asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fun mën a nekk. dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen site bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Dekko di nuyu Baye Assane Mesere sunu xarit. mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëmaat ci sunu réew mi di Sénégal nga xam ne képp koo xamante ni am nga kàddu wala nga am xel moo xamante ni day xalaat ak xam-xam boo xamante ni xam-xam bu rafet la jàpp naa ne réew mi di Sénégal war na laa itteel te it war nga cee wax euh, danoo dégg président Macky sàll bi mu demee fii nga xam ne moo di ci laayeen yi muy wax ci réew mi di wax euh, euh, manqué gi nga xam ne nit ñi ngi koy manqué respect kilifa yi te it loolu wax dëgg yàlla li nga xam ne moo di njaboot gi war nañ leen yar waaye li ci état war a def dana ko def réew mi ku nekk gis fi mu toll wax dëgg yàlla ci ci ci niveau ci ñàkk jàmm moo ñàkk jàmm euh, mën na doon bañ a xeex ak xulo waaye lu koy waaj dafay ñëw te boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne noo yor basiratu xal bi ñaare bu dara dee ñëw ñoom am na luñ cee xame lu tax xam ne nangam dina ñëw xam ngeen ne fan yi ñu génn rek météo moo nu wax na ne ngelaw dina am ay nangami fan loolu li ko may mooy xam-xam euh, kon nag képp koo xam am nga xam-xam war nga wax jàmmi réew mi it war na laa itteel benn nga wax ñu dégg wala ñu bañ a dégg waaye la ci war a mën a am rek mooy digle lu baax ak tereelu bon loolu mooy ndigal la ñi ko yor nag te war a wax loolu nag kenn waru leen caa jiitu kenn waru leen caa gën ay wax. président li mu wax jàpp naa ne kuy wax ci réew mi jàmm ak teraanga ngir bëgg réew mi ëllëg jàpp naa ne kenn waru cee jiitu président Macky Sall ndax yàlla dogal na mooy président waaye dafa am lu ko réew mi jaral lu ko réew mi defal ba ci Ousmane Sonko mii muy nga xam ne moom la jàkkaarloo te bu ñuy wax dëgg-dëgg nag mbir yi te kenn raayu ko te bëgg koo wax waxin wu leer ak waxin wu dëgg di nga xam ne mbir mii nag diggante APR la ak waa Pastef loolu lay doon waaye nag teewut ñooñu benn kii leen ci kuréel leen ci gis nga président Macky Sall yàlla da ko defal loo xamante nii ba Sénégal amee indépendance ba léegi ama amagut moom la président boo xamante ni fii ci réew mi fi la jànge mosu fee génn ci njàngam mu suufe mosu fee génn ci njàngam mu kawe yàlla def ko fi mu nekk fi loo xamante ni mooy jàngal ko ba jox ko ay lijaasaam ba wan ko ne ko man ngaa bokk ci ñi seere réew mi ci koom-koom ak ci lépp leen <coughs> la jàngal mën nga ko yàlla dogal mu dugg ci ab laay Wade mii defal ko fi ay ndombe tànk yu bari fal na ko fi directeur Petrosenine la xaw ma yaakaar naa ne am na lu mu nekkoon loolu bu ma juumee ñu baal ma waaye am na lu mu ko njëkk a fal ci loolu ginnaaw ba Ablaye Wade mii fal na ko fi li nga xam ne moo di ministre de l'intérieur yaakaar naa lu ko jiitu sax Abdoulaye Wade fal na ko fi ministre eh, énergie la xam ma yaakaar naa fal na ko ministre googu beneen bi ci des def na ko fi mu nekk premier ministre jiite gouvernement bépp Abdoulaye Wade defaat na ko fii tamit li nga xam ne moo nekk assemblée mu nekk président assemblée jiite ko jàpp naa ne yooyu ndomba du ndomba yu tuuti benn bi ci des yàlla def na ko maire waa Fatick def nañ ko maire mu nekk seen maire yàlla def na euh, kii nga xam ne nu mu rakkam ji di Aliou xawma la Aliou Sall yàlla def na fal nañ ko fi maire fii Guédiawaye te lépp ay sénégalais ñoo leen koy defal te defaluñ leen ko ci seeni juddu dafa rëy defaluñ leen ko danoo am xam-xam bu fi ëppale xam-xam wala dara waaye dañ koo defal bi mu jógee ci Ablaye wàdd ñu am ak njuuyoo ak réeroom digganteem ak waajuram mën nañ koo tudde noonu sénégalais yépp ñëw weddeeku baayam faral ko moom te fii de ci Sénégal li nu xam mooy diw sax bu ko baayam tooñee nit ñëpp baayam lañ war a àndal mais ñëpp danoo boycotté Ablaye wàdd ànd ak moom ngir jàppale ko loolo ñu def ko fi ñu fal ko mu nekk président yàlla dogal mu taxaw fii def discours bi muy laata falo ne man suma ma faloo danaa wàññi li nga xam ne moo di ceeb danaa wàññi essence bi danaa wàññi lépp xañ na yooyu lu amoon xam-xam la am na essence da cee am xam laa yaakaar ne dina ko wàññi ndax fii essence bi fii lay jóge di jaar fii dem ba Mali Mali gën na koo yombale loolu c'est pas normal ñëpp àndandoo ne ko loolu c'est normal mu ne ceeb bii li muy jar seppa normal ñu ne ko waa c'est pas normal ànd ak loolu lépp ñu fal ko mu nekk président mu ne man su ma faloo sept ans yi nga xam ne dañ koy fal waa président bu fi toog man damay wàññi sama sept ans def ko mu doon euh, cinq ans li ma ci jublu nag du dara mooy démocratie bi ma fekkoon démocratie mën a sax ci réew mi ñun ñu ne ko waa démocratie de moom wax dëgg yàlla bëgguñu ko ko dam loola ànd ak loola ñu fal ko mu toogaat ba ci yàgg mu ne damay sensé waat lu waa réew am réew mi tëggaat ko 2016 ne su ma ko tëggaatee li ma ci jublu mooy kenn koo xamante ni mën naa taxawati def troisième mandat du am deux mandats rek ci lay yem man mi ci sama bopp laa ko tàmbale sama benn mandat bu sept bii su jeexee bu nu ma falaatee deux mille dix neuf jeexal naa ci réew mi mënatumaa defati troisième mandat tàmbali képp koo xamante ni bokk nga ci moom naa troisième mandat mu ne la bu ci waxati boo waxee sama dàq la ñu laaj ko ne ko ndax di nga def troisième mandat mu ne du ma ko def du ma du ma ne waaw du ma ne déet fekk misaal na troisième mandat lu yaatu yaatu nee na Sénégal yi man dañ maa liggéeyloo mais Sénégal kenn xamul lu mu doon day xiin di taw te man wax naa lu leer a leer nee naa troisième mandat mënatuma koo def man bii mooy sama dernier ànd xanaa lii leer na mais Sénégal dañoo bëgg intellectuel yi dañoo bëgg ay débat ay nàngam loolu lépp président dinu ko wax. demaat ba ne man de fii képp koo xamante ni séentu nga ma fa du ma fa gis daal na Ablaye wàdd bi muy campagne al na ko ab lay wàdd bul jéem troisième mandat ñii la ko topp sa ginnaaw dañ lay dugal te boo tàbbee ci kàmb gi ñu daw wax jooju nag da nga koy wëlbatikuwaat indil ko président président Macky Sall yàlla def président yi gën a liggéey ci réew mi ci la bokk loolu moom kenn kenn mënu koo wedd ñi gën a liggéey Sénégal ci la bokk li mu liggéey ñépp a nga ci teg seen bëgg daanaka niiw na sax opposant yi koruse ko ci loolu menam Idriss Seck mi moo ko doon wax naa ko sa vision passé wut jam ñaajo mënoo dangaa tëli waaye booba wax dëgg yàlla ñu bàyyi seetaan ko mook Idi ndekete Idi nii la meloon bërk démb nee na ko man maa doon wax loolu waaye ay li yéwén ne tëliwoo sa kii la waaye nag li ma bëggoon mooy nga génne ci porte bu mag bi benn bi ci des <clears throat> loolu lépp ñu <clears throat> di ko ci gërëm di ko ci ñaanal mu def ko ci defin woo xamante ni anam bu kii la waaye nag li ci desaat nag te réew mi war a am jàmm ku nekk war na cee wax ne maanaam boo waxee ne lii moo indi xaajaloo bi moo indi coow li war ngaa wax li koy dalal. li koy dalal bokk na ci président Macky Sall def déclaration bu leer ne man duma ma dem troisième mandat sama màndaa jeex na dinaa leen bàyyi ngeen seet képp ku leen doy ngeen fal ko ndax dama leen a doyoon jeexal naa ak yéen Sénégal jëm ci kanam. daa di cay tegaat beneen question daa di ne man de coow yii fi am nga xam ne moo indi lii di am ci senegal ba coow la ko tàmbali woon quatorze mois ci loola lii tax du amaat te moom nee na loolu du fi amaat lay taxa du fi amaat bokk na ci mu taxaw ne mbir moom ma jeexal naa ko tàkk man maa leen waxoon ne su ma gisee coow loo xamante nii dafay indi eh, perturbation cim réew dama ciy teg sama conc bii mu teg ci concaam lii nekk diggante mu Mame Mbaye ñu tàmbaliwaat di ko coowal te màmbay Mbaye ba yëf yi tàngee bëggoon naa daw làqatu ji ca Ousmane Sonko te loolee mu bëggoon ñu ko daf koo wax rek waaye ñu baree baree ko bëggoon ca jamono yooyu kon nag mu daal di taxaw ne lii Ousmane Sonko mii tamit duma ko baare mukk sama candidat dama koy bàyyi mu dem ndax xam naa ne <clears throat> opposé ni mettee ak li ci nekk ci coono jàpp naa képp ku koy def bëgg a defar réew mi rek moo la ñor mu war a xam ni ñiy defar réew mi ak ñi ko bëgg a defar kenn jiituwu ci Ousmane song ndax Ousmane songa bu ko neexoon bu fekkoon xaalis dong la bëgg impôt domaine ngam nekkoon man na faa ne bu fekkoon xaalis rek la bëgg dina ñëw fekk si la foofu doon mburu ak soow wala moom mu doon cagri sax wala mu doon kii nu mu tuddati euh, ñëw nekk ci sa wet waaye yooyu yëpp xam nga ne bëgg ko moom li mu bëgg mooy gis na ne garaam bi li mu def ci réew mi dëgg la waaye nag am na lu des li des laa ko bëgg a loolu jàpp naa ne loolu question bu baax la nga jàpp ne kii mooy kii la gën a bëgg waaye ñi nekk sa ginnaaw naa la man nga ko sañ nga ko bul ko bàyyi ñooñu du bëggunu réew mi bëggunu réew mi te yàq nañ fi lu bari barki démb gis nañ far ba mu nekk fële di sànni ay xaalis loolu kenn xamul lu mu doon di sànni xaalis mel ni ko koy sànni ay tànn nit ñi daw di ko kii beneen bi ci des Moustapha Diakhaté mi dégg naa mu wax wax joo xam ne ju ko gën a ñaa amut ak ju ko gën a deltu ginnaaw ju ko gën a nilaar mu naa Macky Sall euh, danoo nar sàgg sa Touba ndax Touba dañ daan wax bu njëkk di bàkkoo na ko fi falu ñoo la fal te Macky Sall falu na ñaari yoon te kenn falu ko waaye loola li muy jur mooy ëllëg kuy liggéeyati danga naa duma liggéeyal Touba ndax duñ ma fal loolu mooy ak deltu ginnaaw ak nilaar ñun biñ koy fal faluñu ko ngir mu liggéey Touba nu ko dañ koo fal ngir mu liggéey Sénégal ñi ko contre ak ñi ko contre ñëpp fépp la war a liggéey loolu boo doon intellectuel di wax ak waa Touba jàngunu di nga xam ne loolu ak nilaar la loolu benn président amul sañ-sañab def ko wala mu war koo def konu fal ñi la gënoon na noonu ak la gën a bëgg ñooyam ci yow te président na nga xam ne fii nu toll nii xale yi jóge na nga yëg ne xale yii ñoo la faloon ñii nekk sa ginnaaw di la wax sañ nga ko ak man nga ko ñi la fal ñi ñoo ci gën a tuuti sa parti bi ñi la fal nekk ci yow ñi la faloon te te xamoo leen ñoo gën a tuuti ci ñi nga ñii nag nekk ci sa di la wax ne la nangam la man de jàpp naa ne lii boo ko defoon déclaration da nga gis mbooleem sénégalais yi di di lii taxaw ci télévision RCS bii dikk ne man troisième mandat bi ma leen waxoon du ma ko def coow lii ngeen xam ne am na fi ci diggante yii nag te ay bakkan ak lu nekk di ci xew coow loolu arrêté naa ko ndax man may première responsabilité du fi am élection yi organise naa ko dat sàngam det boobu ñëpp ay bokk ku bëgg a bokk ñëwal Abdou Diouf danaan wax ne jàkk ju nodd nañ ku mën a ku ku ñeme ñëwal ku ñeme jàkk jaa ngi ku ñeme demal nga nodd loolu la daan wax daal di ne ñoom ñëpp nag dindi naa leen pour ñoom ñëpp ñu dem ci élection yi ñu organiser ko na mu gën a rafete ku gañ a toog nga félicité ko seet leneen loo mën a def ndax bii loolu jàpp naa ne boo ko defee declaration bi balaa jeex ñu ne Ousmane Sonko candidat lay nekk ñëpp ku bëgg a nekk candidat ne ñëw coow li jeex na loolu affaire aji saar yi jeex na ndax loolu du du mbir moo xamante ni mbirum dara la waaye jëmalewut Sénégal li ci senegal perte moo ëpp lim ci gañe bu ko defee loolu nga def ko dëkk la jàpp naa ne ñëppay toog di sible di la ñaanal ñaan koo xamante ni kenn du xam nu mu toll man nag lii sama xalaat la man personnel dëkk fii ci senegal am carte bokkoon ca ña la woteeloon ngir nga falu waaye nag jamono wax dëgg yàlla nga nu waxoon comme jeex na ah,